yaa xayra dayfin ataa bil bishri wal madadi bismillahi rahmaani rahim alhamdulilahi rabbil aalamiin wasalaatu wasalaamu ala man ala ashraf al anbiyaai wal mursaliin yaa xayra dayfin ataa bil bishri wal madadi ahlan wa sahlan wa tarxiiban bilaa adadi ñoo ngi nuyu mbokk yi teew ci béréb bu tedd bi di jumaay Tuuba ci njiital daairatu muxaddamatul xidma te suñuy kilifa jiite ko ci sëñ Abdoulahat bu sumi bokk ci kilifa yi ko jiite wala sax mënees na ne mooy jawrin ji ak sëñ Abdou Xaadir mi teew ak mboolem sunu rakk yu tedd yi ko teew yëpp kàddu yi moom xam naa ne lu baax du doy waaye jàpp naa ne jëru ko sunu xarit bi tax ñu ñëw fii sàkku ko woon ndax xam naa ne du ko dolli leen waaye dëgg la du ko wàññi leen ñun ñi it niki noonu waaye nag lu baax la rek ak it bëgg ay moroom roy ci lañ ci jublu moo tax ma ko sëñ ji loo na bëgg ay moroom roy di leen xamal na seen mbokkum taalibe di seenu taalibe sëñ Maxtaar Sey nekk ku baax koo xam ne bi ñu gën a jëm ndaw ñoo doon jàngandoo nekk ku jaar doomi daara rek jaar na ci jàngukaay sëñ Murtala nekkoon na it ci jàngukaayu sëñ Saaliwu yi ginnaaw ba nag moo nekk ci réewum Dubai mu Arabiyal de di fa liggéey liggéey bu kawe waaye nag di sàmm ak taalibeem looloo mu dogal yàlla dogal mu dem ba ubbi fa ay société bu mag bu ubbi fa usine bi nga xamante ni mooy La Ferèche bi ngeen jàkkaarlool euh, mooy ki nga xamante ni nag dëgg la xamoon na daayira bi daana ko dégg waaye xam naa li la yàlla doog a dogal tey rek du ma fàttaliku lu ëpp fukki at ak lu yàgg bokk. mas naa nekk Dubai ak genn koor bu ma ko gën a jëwoon mas naa koo jox sëñ Abdou Lahad Bousso xamal ne ko kat foofa ay feretkat ngeen boroomi conteneur ngeen fu neex a ferete ngi defukaay lu baax ngi nii ba mu sawaroon ci lool dëgg la nag lu jot rek yombu léegi nii rek laa nekkoon ci yitte yu xaw a jàmp sax mu woo ma foofa ne ma kat lañ bëggoon xëy na ne ma ko bëggee woon mën naa bañ a demee waaye damaa bëgg lu ci tàmbali ren ci njëlbeenu koor gi ca rafet naa jot ci ne ci mujj koor gi la ci des dina ñëw mooy am naa dara ci tàndarma muy kees yi ngeen gis bëgg naa ak addiyee ju ju yem bëgg naa nga joxal ma ko sëñ Abdou Lahad Bousso mu tegal ma ko ci loxol daayira Muxaddamatul Xidma ngir mu barkeloo ko ci koor gi ñu ñaanal ko ci xam ne fas na yéenee ànd ak ñoom loolu rek mooy kàddu yi ngeen ñaanal ko bu baax a baax seen mbokkum taalibe la rek ngeen xam ne it incha allahu taala kenn la ci daayira bi yàlla dogalee mu ñëw fi dana fi ànd ak majaw mi nga xam ne mooy loxo ndeyjooram ca nekk ci société bii nekk dakaar ba sart yi daayira bi def yëpp rek mu mën cee bokk ca du jar benn protocole du jar ma di ko teewee mu bokk ci comme nit ñëpp bokkee xool lim ci man mu di ko féetewoo loolu kon mooy tànk yi li ma ci dolli rek sama waxi bopp la nag sëñ Majaw maa ngi la ko yóbbante boo demee ci société seen société bopp bi ñun ñëpp ñu bokk ci muy la fraîche mooy Touba action ba ma xamoon Dubaay bu yàgg-yàgg muy al muxtaar lil mawadil xisaaye ba ma xamoon Dubaay ne leen gis naa ñi yëngu yëpp bari na lii nag sama waxi bopp la en tant que di seen xarit yéen ñaar ñëpp daay di xaritu daayira bi di xaritu société bi daayira bi bari na alhamdulilah société bi li muy liggéey bari na xam naa ci lu bari da ngeen di defar mayonnaise jus bii tax ñu naan ne la fraîche yéen a koy defar mu ngi fële ci si yéen a ko moom ak yu baree bari. moo tax na nga gën a jokkoo ak waa daayira bi ñu wax la mboolem li nga xam ne daañu ko ci aajowoo ci koor gi ca mu jógee ci li nga xam ne ñeen ko liggéey jógee ci seenu ñaq bu di seen marque bopp loolu nag sama waxi bopp la man maa ko wax en tant que ku bëgg lu baax ca bokk ci ñaar yëpp dégg nga incha allahu taala bari na lu ma xam société bi di ko liggéey fii danañ fi togg bàyyi leen xel lool gis naa ne da ngeen di defar diw ki cob fonk ngeen ko lool mayonnaise gis naa ne da ngeen koy defar macaron da ngeen ko defar loolu lépp fii daara la yëpp jàpp naa ne ñoom danañ ko jariñoo mën naa am fi ñu toggee fi ñu kii doo ko gis waaye ñoom li ñuy def ci yu mel noonu moo tax nag kon maa ngi ñaan waa société boobu ci xam naa daañ ko nangu mbooleem li nga xamante ni am nañ ko ci jàpp naa ne lépp lu ci dut xorom rek xorom moom maa ngi ko teggil na xam naa ne xorom co <laughs> incha allah lu mu ci doon lu dut xorom rek daayira bi danañ ko kii incha allahu taala ca loolu tiyaaba la mën naa sant yàlla it lu société boo xam ne ay taalibe Sëriñ Tuubaa moom ñoo ko créé société bi yaatu lool man xam naa ci dara ma nga Addis Ababa coppi dara nga fa ma nga Europe ma nga Dubaay ma nga fépp ci àdduna si jàpp naa ne loolu lu ñu def fii looloo ci war a jiitu ndax loolu dara génn leen ci lépp yéen a ko moom loolu kon samay waxi bopp la yoo xam ne maa ko ci yokk jàpp naa ne incha allah luy gën a am njariñ rek lay doon loolu moom na ngeen ci xalaat waxtaan ci nga xool yëpp su boobaa it bu rek xam nga fi muy jaar xam nga ni muy def ba agsi léegi jërëtu ko incha allahu taala boo ñëwee daayira baa ngi fi incha allahu taala loolu samay waxi bopp la nag jërëjëf bismillahi rahmaani rahim alhamdulilahi rabbil alamin wasalaatu wasalaamu ala rasulillah asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu Cheikh Mouhamadul Mourtada ñu ngi lay delloo nuyoo bu baax di nuyu sëriñ ma géey mi sëñ ma jaw mi nga àndal xam naa sëñ ma jaw moom ku ko ne sëñ ma géey dana xorom <laughs> waaw waaye xam naa kon dañuy jégal rek sëñ ma jaw ñu ngi lay delloo nuyoo bu baax di yóbbante nuyoo itam ci sunu mbokk sunu xarit suñu wëlëre sëriñ Moxtaar Sëy di koo xam ne sëñ Mourtada mii moo ñu xamale woon euh, suñu njëkk xamante mi ngi doon ci téléphone muy waaye nag muy ku baax ginnaaw bi itam gis nañ fi ay yoon yoon daaw rek defe naa dooge na fii waaw ba ba booba sax xam naa ca jataay ba la xalaat xalaat bi kon nag ñu ngi koy nuyu bu baax di ko ziyaara di ko ndokkeel itam ci weer wu tedd bi nga xam ne ci la ñuy dugg incha allahu taala di ko ñaanal itam suñu borom dolli ko xeewal yu yaatoo yaatoo yaatu matal itam ay yéeneem gis nañ ay taxawaayam lool nag ci daara gis ay taxawaayam ci diini ji yu bare bare bare bare yoo xam ne mi ngi xew ñu ngi koy yëg gis nañu bis fa sëñ Murtada mi ñëwee di visité euh, jumaa ja ak yëpp kon mel na ne ñi nga xam ci moom lu bare bare day taxawaay yoo xam ne ñu ngi koy taxaw ci diine di ko taxaw ci daara waaye lii nag day benn taxawaay ci taxawaay yooyu mu taxawaat ko bis ni ki tey lii sëñ Murtada wax rek xam naa yàgg na ci am yéene ndax moom ci bopp boppam yàgg na ma ko wax Euh, waaye xëy na tey la ko yàlla di door a dogal ñu jàpp ne it ab tàmbali la boo xam ne buy woy la incha allahu taala ñu di ko sant bu baax di ko gërëm di ko ñaanal ci këru liggéeyukaay bi yi nga xam ne moom la taxawal ci réew mi tey ndaw doon ndaw loo xam ne dafa bëgg suqali am réewam suqali ay euh, ndaw yi nekk ci réew mi it yéene jooju mu am pas-pas boobu mu am suñu borom gën ko cee jàppale bu baax a baax ndax noon na nekk foofu rek di liggéey ak ña liggéeyal waaye xelam du nekk ci ñu mu bàyyi gannaaw kon bu xelam nekkee ci ñim bàyyi ginnaaw mu créé lu rëy lu mel nii loo xam day taxaw ay boromi kër yu bare bare bari yor ay kër yu bari di leen dimbale loolu itam wax dëgg yàlla lu am solo la lu rafet la lu baax la loo xam ne dañ ko ciy encouragé bu baax a baax di lool nag ci taalibu Sëñ Tuubaa boo xam day taxawee lu mel noonu muy xettali jaam muy jaamu yàlla ci jaamu yàlla yi kon nag ñu ngi koy sant bu baax a baax a baax di ko gërëm te di ko ñaanal di ko wax ne liggéey bi agsi na gis nañ ko Cheikh Mouhamadou Mourtada ak sëñ Madiaw andi nañ ko ñu ngi koy ñaanal ñu teewaat fi ni ngeen di te bu déwénee sunu borom yokku ko ba mu yëg yokk na ci barke Cheikhul Khadim jërë ngeen jëf yaa xayra dayfin ataa bil bishri wal